wafat ummi léegi nag jàngaloon na la génn ak àdduna gi baayam bi ma amee ñaari weer ci biiru ndeyam tey nag mi ngi jàngale génn àdduna ak yaayam moo tax mu ne fii wafaati ummihi sallallahu su ma maata topp génn àdduna ummu taaha mooy faayil ja yaayu yonantu bi damaa xataa comme naka la ko nettali xudamaaw ñu tudd ña tani li arbaa ci xatam ñeent ci dundam aw ñu fittin wala xatam juróom benn loolu leen gën a wér siira toujours wax ju mujj jëla dégg nga bi mu xamee juróom-benni at ci la yonantu bi génn àdduna bi mu xamee juróom-benni at ci la yaayam génn àdduna dégg nga ndeysaanam fekk yaayam da ko doon yóbbu madinatul munawara ci kër ay nijaayam ba demee ba ci yoon feebar daane ko mu mujj génn àdduna bi génnee àdduna nag maanaam mu ay man mooy ki nga xam ne moo ko jiital mujj andi ko màkka moo dégg de moom sax yaakaar naa moo ko way way wii sallallahu alayhi wa sallam ñu ne yaayam ba muy génn àdduna euh, moo ko way way wii shahidat aminatu umu nabi sallallahu alayhi wa sallam si illatiha allati maatat biha moo dégg ci la wax ne baraka fika allahu min gulaamin yabna alladi min xawmatil xammaami su ko defee najja bi awnillaahi bi awnil malikil allaami fadan xadaata darbi bi sihaami bi mi atin min ibilin sawaami in saxama ab sartu fi manaami fa anta mabuusun ila al anaami min indi zi ljalaali wal ikraami tubaatu fi lxalli wa fi lxaraami tubaatu fi ltaxqiqi wal islaami diinu abika albarri ibrahami fallahu anhaaka anil asnaami lii nii ndeysaanam bu muy génn àdduna ci la ci la yaayam way wayam yu siiw yi ne xale bi yal na la yàlla barkeel ci li wër fépp yow de yal na yàlla musal la yow mi nga xam ne yow lañ jotee woon téeméeri gëléem ya li nga yaay ki nga xam ne ku ñuy yónni nga ci nit ñëpp mu bàyyee ko yónent bi di bàyyi ko ci yàlla nga nekk koo xam ne dañ laa yónni ngay daganal lu xaraam ci ci ci ak di lu xaraam da koy xaraamal lu dagan nga koy nga koy nga koy daganal nga nekk koo xam ne ku ñu yónni la ngay dëggal lislaam ci sa diine baay Ibrahima su ko defee yow nag dañ laa tere bu ko kuy jege xiram yaayam moo ko wax waay jure yooyu ndeysaan ñuy ndeysaan mu génn àdduna dégg nga bi mu génnee àdduna nag baax daxaa gannaaw yaayam ay man ayman ummu ayman xamalatu moo ko jiital ñoo ko firee boon ndax boobu xattunu ko wala ñeel na ay man rifaatun ak yëkkatiku waxtilaaw ak kawe bi ci yonantu bi ummu man nag xam na dara yi ko yëy ci yonantu bi ummu ayman mii man nga wax ne jaam la woon boo xam ne maanaam ci ko ci bàyyam la ko jëlee bàyyam ko ma Abdullahi mu joxoon ko nag sayyidatuna Amina mu féeteexoon ko waaye nag moom moo yar yonantu bi yonantu bi daana wax ne ummu ayman ummi ba'da ummi yonantu bi keroog bi mu takkee sayyidatuna Khadija ci la goreel ummu ayman ummu ayman mii nag waxiye moom ummul xibbi mooy yaayu soppe bi kuy soppe bi mooy yonantu bi ibnu xibbin doomi soppe la li taaxa ñeel yonantu bi lahuma ñeexal na leen ñoom ñaar wilaawu ak méngee mi na taaxa ci taaxa aminu kuñ xóolu ka ummu ayman a daan wax ummu ayman ummi baax da ummi ummu ayman mii moo jur ayman waaye ummu ayman moo jur usaamatu ibnu saydin mayoon nañ ko saydu mu am ci doom di ko tuddee moo tax mu ne lahumaa ji mi ngi ci ne euh, ummu ayman ak doomam ji yëpp soppee yonentu yàlla Muhammad la muy usaamatu loolu bëgg xam nga wala de moom mooy doom ci koo xam ne moo moo ñu indil doom joo xam ne soppee bi yonentu bi la kooku mooy usaamatu ibnu saydin mi nga xam ne moom la yonentu bi takkaloon armée bi mu feebare ñu mujj format nga xam ne bu Aboubacar toogee ci xilaafa gi loolu njëkk a moo tax mu ne waxiye moom ummul bi mooy yaayu soppe ba waaye ibni xibbin doomi soppe li ta am na ko li taxa ñeel yonantu bi lahuma ñaa leneen ñoom ñaar mooy ummu ay man ak doomam jooju nga xam ne soppe la si yonantu bi wala wa ak méngoo mi na taaxal amima dañ ko si yonantu muñ wóolu ma maanaam ah, seeni jaam lañ euh, waaye yonantu bi goreel na ko keroog bañ ko mayee bañ ko mayee tabaarakallaahu sayyidatuna Xadija ramadat wànnentu na aynu ahmada bëtu ahmad ba saama sapen xatam juróom-ñaar xabasa baax na lii muqlatun nagu bët ram daaw bay aji wànnentu la woon ñeel ko am na wànnentu wu métti wi dal xale yi moom juróom-ñaari atam la ko dal fuñ ko yóbbu rek duñ gis feebar yóbbu nañ ci médecin bu ne yóbbu nañ ci buxaab bu ne dara mu jigéen nag zahaboo yóbbu nañ bi nabi ci yonent bi naxwa tabibin ci wàllu médecin boo xam ne rahib la waaye suma maam nee na wa kaana amee na sifaawu saafara ga bi riqi nabi ci taflitu yonent ba labbe bay xool rek ne leen ah fii kat sifaawu riquhu taflitam yi moo koy saafara jël leen di ko ci riixal suñ ko ci laay da ci la yonent ba tamit mujj sedd guy kon gis nga yonent bi taflitam yi tafli na ko ku damm ku mel ni ibnu ak wax mën a dox tafli na ko ku wànnent ku mel ne Ali ibnu Abi Talib mu gis tafli na ko kuñ bukki bëtam de muy mu muy maanaam xataadatu mu gis kon yonentu tam ya avant mu cay saafara kenn boppam la ki njëkk a saafara ci lañ trouvé ne ndeke moom taflitam yi day saafara hmm. sallallahu alayhi wa sallam suma ama samaani topp xatam juróom ñett ci xatam ya xan maata la génn àdduna fii ci moom saybatul xamdi borom bi jaaw buñ sant bi xanaa mooy maamam di nga xam ne moo jur baayam njënte ko jadduhoo kay maamam mi taaw kay dikkee haakoon xiiw léegi nag at mu tàng la at mi ci lañ wax ne ci la ano sirwaan judd ci la génn àdduna waaye at mi ci la ah, maanaam xaatim taay mu tabe moomu ci la génn àdduna wa abu taalibin abu taalib wasiwun mooy kuñ dénk xale ci yonantu bi bax da haasa gannaaw génn àdduna ak abdul mutalib wa ursida jubaleef na isaa wun dénkaane ba abu taalib ku baax la ndax moom tamit yonantu baay seen baay di abu ah, abdul mutalib ki nga yëgee ne ndekee am am du yore jikko mooy yore nit pourtant abu taalib mii ñi ci gënoon a ñàkk la bokk waaye ni mu gisee mu xajoo njaboot ak nit mu yaatoog ni mu mënee yor ni mu mënee moo taxoon rek mu ne ko yow laa dénk sama sët bi yow laa ci wóolu waaw mu ngoog léegi nag mu toppatoo ko lool fonk ko lool jàppale ko lool jàpp ko lool wabisal xaami ci at mii waaw dañoo jël wabisal xaami ci at mii nga xam ne ci la wànnentoo ngay dëppaat wabisal xaami ci at mii mu wànnentoo xat xabaa la may sayfun sayfu ibnu siyatan aljada maami yonantu bi maamam ja mooy abdul muttalib bi sifaatil haadi ci melaw yonantu wa neex ma baax na xibaawu may mooy abdul muttalib juróom-ñaari at ci la yonent bi wànnent ñu yóbbu ko ci labbe bu ne mënu koo faj yóbbu ko ci médecin mënuñ koo faj bañ mu ngi dem ci benn labbe boo xam ne médecin la hmm. mun leen sifaawu riqoo comme ni ma ko nettalee léegi hmm. at mi nag ci la ñu yaman fal buur bu bees mu ngi tuddee Sayf ibn Hiyatan hmm. seetaan ngeen ay mbiram ci film bi keroog nag bañ ko falee Màkka def délégation Abdul Mutalib moo ko jiite ñu demoon ndokkeeli ko bañ ko ndokkeelee ba pare rek mu woo Abdul Mutalib ñoom ñaar ñu tëj ko ci néeg mun dafa am lu mu la bëgg laaj secret la ndax jamono ji amul xale bu war a juddu ci seen màkka ga ku yéeme ki may wax nag normalement bàyyam warul dund génn àdduna maanaam tamit yaayam génn àdduna kiñ ma wax daal maama ma ko war a yar wax ci moom ay melokaan bëri ba wax ci loo xam ne Abdul Mutalib mi ko yar sax xamut ko ci woon léegi nag moo tax mu ne ci at mi ci la may sayf ibnu yesan may na aljadda maam ja bi sifaatil haadi melaw yonantu yi mooy li ma la wax noonu léegi nag ba mu pare xale bi mu nangu léegi nag ba mu ko wax ba wax jëpp bëri ci la ne ko nag nga baal ma waaye ko sax man maa jur baayam Abdoulaye ko jur maa ko jur Abdoulaye moom nag ba muy am ñaar ba xale bi am ñaari weer ci biiru ndeyam rek ci la ci la ci la génn àdduna mu ne ah loolu lañ jàngoon mu ne ko pourtant daaw rek la yaayam gaañu juróom benni at boobu la xale bi mun ne loolu lañ jàngoon mu ne ñu wax nañ ne yow yaa koy yaar waaye yow tamit de la fi dese hmm. waaw ci juróom ndax moo si déwén si rek la gaañ moom nag la ko wax si nii mm-hmm. nag te loolu yëpp ko ci woon xamul ko ci woon nag mm-hmm. ci miixat say buy monsieur waaye buur la woon waaye buur yi kii la buur yi yaman yi mm-hmm. moom la ñuy wane filmaam yi say buy monsieur san daa nañ ko wane ci film yi kii yi waaw am na xam-xam kay waaye da ko jàng ci kii yi suma ama samaani xanaa mooy ca déwén sa nag xam nga dañ ko dem ndokkeel ko ci juróom-ñaareeli at yonantu bi juróom-ñetteel ba nag xadmaat bi ci ci moom xaybatul xamdi borom bi jaaw buñ sant ba jaddoo kay maam mi taaw kay dikkee xaa kon wa abu taalibin abu taalib wasin mooy kuñ dénkaale ci yonantu baax da xaasa gannaaw génn àdduna abu taalib abdul mutalib wa ursila jubaleef na isaa wu dénkaane ba dégg nga de mu ngoog abu taalib na ko bëggoon yonantu bi la ndeysaanam dégg nga mm, moo ko daan way way yi wa abyadu yustasqa alxamaamu bi wajhihi simaalul yataama ismatun lil aramili su ko defee yaluudu bihi lhilaaku min ali hachimin fa hum indahu fi niamatin wa fawadili wayu rafet yi la ko daan way mu ne yonentu xarxaramam baa nga leer ci lañ daan nàndaloo niir maanaam bu yàlla ji bañee taw buñ ko yóbboo rek xettaliku ci xarxaramam bu sell ba rek yàlla yàlla ji may ñu taw ndax xettaliku nañ ko mu tawa leen ba tàyyi abbas def na ko moom def na ko mu ne mooy wéeruwaayu jirim yi mooy tamit buum ak sëy ñi nga xam ne dañoo ñàkk jëkkër kenn ku ne fa la sa jëkkër féete woon di la dimbale yonentu moo la fay féete hmm. ñii ko ñëpp ci banu xaasim ci moom la ñu wéeru hmm. bañ wéeroo ci moom ba léegi ci xéewal ak ci ngëneel lañ nekk sallallahu alayhi wa sallam boobu italxaam yi ci at mii at mu am la mooy at mi nga xam ne ñett ñi lañ génn àdduna hmm. xat madat la woy meneen ah, xat la déedéet déedéet beneen dañoo tëb wa bihi ci at mii ngay wax ne ca kanam ngay wax déedéet ngay wax ne waxat mada woy na nax wa busra ci wàllu busra bihi ak yonantu bi alxam mu bàyyi tax ba bàyyi tax bii bi ñu dénk ko muy Abu Talib moo njëkk a génne yonent bi Màkka mu dem voyage yi tukki xam nga juróom-ñetti at ci la bàyyam génn àdduna juróom-ñetti at boo ci tegee ñeenti at ñaata lay doon fukk ak ñaar ba yonent bi amee ak ñaar nag fukki at ak ñaar ci la génn Màkka nag dem Sham tukki ànd ak bàyyi bi ak délégation bu rëy ci nit xat moom lay wax nag moo tax mu ne waqat ma daa wëy na bihi ak yonent bi alxamu bàyyi tax ba nax wa busra ca Sham la ca wàllu Busra mooy capitalu Saam euh, aw aw maam Khalifa ju ñu ne aw yax faa ndax dana nëbbu sanaawu leer mel bu dóor yi ci weer déedéet moom kenn rek la da koo jamoo mu nel badri rek bu naan bu dóor yi yonent la namu ci moom mu ne ndax weer weer ay weer weer kenn mën na koo nëbbu déedéet dafa am xisa bu rëy bu mu junj ba tey waxagut ko wa bi salxaami ci at mii xat madat la way xam muhamin fukki xat ak ñaar min sinnii ci xatu yonent ba kama xakaa comme ne ko la ko nettali askiyaaw ñu sell ña ma ngay dugg ca xisa ba nag waaye da koo dagg xàll foofu desal nañu yonent bi wax sari xaale ci digg bagage ya walakin li fi nekk maa bi fat din de di ñeexal ngëneel xafaaw ak nëbb mi lay bàyyi ko ci yàlla ngëneel yàlla koo mën a nëbbu kenn wa bahira bahira raahu gis na ko wal xaq dëgg nóorul leer la laatu baarihi du garlanteeg mun fi sanaa ci leer ci kawe su kaawu jant bi faraahu ñoom mbooloo ma gis nañ bahira ba daa mu feeñal yu xiddu di ñawal nasran xool ilay jëm ci yonent bi kay tabdoo ngir na feeñ la ko an baawu fa atawhu daanañ ko dikkal wa daxaa kon xoona al wafda délégation ba lil xiraa ngir berndeel leen dafa dafa dugalante xisa yi israa ba mu gisee fii ca délégation ba al mufadda kuñ jotee woon téeméeri gëlëm ko mooy Seydunaa Muhammad sama maam ne walil kiraa mi ak yi nekk la neel ñu tedd ñi ihtinaawu eh, sonnee mbir ku tedd day sonnee mbir am hitte ci dara moo waral nag fa atawhu dikkal nañ ko daanañ ko dikkal ngooy firee te wakkaan nekkoon na lay sa yu baali mosu leen a xay su marru fu ñu rombe bii ci wala xay su jaawatu jàkkoon fu ñu mën si dikkee fu mosaan dikkee bu ñu daan nuyu sax duñu ko faale waaye nag faraahum gis na leen wa maa raa gisul albadru weeru fihim ci biir seen biir maam xalifa ne wa ida xaaba bu fàddoo albadru weer wi xaaba fàddu baxaawu taar bi léegi nag ba mu ko gisul nag kaala la wax ne fàddu xooleen lii ñeexal ma xooleen kooku ngeen desal fa fa qaala fa qaama jug na ilay jëm ci moom ahadul qawmi kenn ci nit ñi di ba is daaw ba mu ko xooyee ni daaw xoote ba qaala ci la wax nag nag li nga xam ne ñeel bàyyi tax ma abu taali abu taalibin dégg nga su ma baax da ixtibaar gannaaw ba mu ko exeme jumatul ixtiraat la ne ko li yahudi ñeel na yahudi yi makkarum pexe bii ci moom wa daaw ak njommal mun li fa neexoon rek mooy su ma xaamaan li xam ni li yahud waaye su ma dégg nga ne ko rub waaye sama maam ne ruba këy rin na pexe xad raddoo dellu na ko laaw yàlla xam ne walis ko fii nuhuuril abdu yi ci pottaxi noonu ya huwa moom balaa muy taskare taxawal na ma nettali la xisa bi maanaam dafa bëgg a wax ne bi yonentu bi xam ne fukki xat ak ñaar bàyyi taxam bi di abu taalib da koo jël ñu war a dem saam mu dañu dem nag labbe bu mag bu ñu tuddee Bahira moom ci yoon wi la nekk tabax fa benn iglisam moom nag naka jekk waa màkk yi bu ñu daan dem foofu la ñuy jaar waaye mosuñ koo romb nuyu ko mu fay leen ndax ñoom dañoo xamoon ñaari tukki moom nga jàng ne mun a rexlata chuta yi wa sayfi léegi nag bi ñu dem saam nag romb foofa mosul leen a faale waaye tey nag ba mu leen gisee ko jaral moom ci boppam moo leen xoonee eh, xool ma délégation bee ñu ñëw ba ñooy fekk mu rey ay xar ñu ko def la ca war lépp gars yi nag ba ñuy ñëw xool ci biir délégation bi ne ah kii de moo fi gën a tuuti Mouhamad fukki at ak ñaar rek la xam nañ ci toog gardeel ñu bagage yi ne ko toogal garde ñu bagage su fekkee kii woo ñu dafa ñoo wax bu ñu ñëwee ñett li la bu ñu joxee bu ñëwee sédd la yonentu ba des fa bàyyi ko fa dem demee Bahira xool leen ci tax mu rey gëlëm yi ak xar yeeg bëy yi gisu ko ci seen biir mun leen kenn desut gars ne ah kay benn xale bu ndaw de moo fa des moom nañu ñuy wattuloo bagage yi mu ne bu ñëw du ngeen lekk koo tax ma rey gëlëm yi dem leen ngeen xooyi ko foofu nag la kenn jug moom la wax ne a qaama ahadul qawmi ne ko kaay nga ñëw xuy si ba mu ñëwee nag mu ne waaw kay ci taxoon may dafa ngi lekk ba suur nag mu ne nag baax na man ngeen a dem xoo bàyyi ba nag dëpp tëjoog moom ci néeg ba comme ni sayf ibn siyaasan tëjoogoo nag abdul mutalib ne ko waaw xale bii bàyyam génn na àdduna de mu ne ko waaw bi mu xamee ñaari weer biiru ndeyam mu ne ko waaw yaayam génn na àdduna de mu ne ko waaw bi mu xamee juróom benni at mu ne ko waaw maamam génn na àdduna de ba mu xamee juróom-ñetti at mu ne ko waaw yow mii yaay bàyyi taxam yaa mag yaag baayam mi ko juru yéen a bokk ndey ak baay mu ne ko waaw mu ne yow yaa koy yar yaa koy takkal soxna yaa koy yore bañ koy war a yónni mu ne ko nag ñun làbbe yépp jàng nañ ne ci weer wii ci bis bii ci waxtu wii mu jëg yonantu bi dana fi jaar tukki jëm sa voyage bi ñun ñëpp ko jàng hmm. man nag ni ma yaatoo dënn ba man leen a xajoo rayal leen ay gàtt teral leen sama mbokk yi mënuñ ko léegi nag dama lay ñaan bul boo mënta dëpp tamit bul yegg ca capital ba bu salaa gi la taxoon a jug bu fa yegg waaye boo fa yeggee rek labbe yi danañ ko fexeel luñ man ci faat ba dañ ko jéem a def léegi nag loolu loolu nag la junj ci xisa bi yëpp moo tax Bahira ndeysaanam ah, gannaaw si gi tuub na ah, fekk si yonent bi ca Madina waaye des na tuuti nag léegi nag maam xalifa ne lii dëggal wax jooju safaatun juróom-ñaari nit aqbalat bàyyeekoo na minit wuum bàyyeekoo ruum mm-hmm. xadran ngir xor wali xatlin nabi yi ngir rey yonantu bi ataala dikkee ax bi yaaw dof yi gis nga ci même voyage boobu juróom-ñaari nit dem nañu yore seen i ngànnaay tàgg seen jir gis ba ne ko dañoo bëgg a rey yi mu jóg yonantu yi dégg nañ ne dafay tukki si mm-hmm. ñu leen yëpp ngeen koy rey yéen ay dee ko jàng nañ ne foog ñu yónni ko foog dañu wàccee ci moom alquran ku bëgg rey nag ku yàlla rey reyagut yow yaay dee moo tax mu ne fas tasaaroo diisu nañ jir jiisuum seen jir gis ba mooy seen kilifa ga fa naxaahu mu tere leen xan maraamin walis càkkuteef boo xam ne tawaddoo boobu dana ngéeju ko asqiyaaw ñu texeati ña maanaam la ñu bëggoon moom moo leen ca leen ne leen jërul dem nañ bàyyi bëgg yàlla waaw bu ñu léegi nag mun leen bàyyi du sotti parce que ñun jàng nañu foog ñu yónni ko kon li ngeen bëgg du sotti waaw bu siiw bu ñu tuddee yowmul fujaar te moo doon bis la boo xam ne day tekki njàmbaar ak seyduna muhammad maam xalifa di ñu ko ci jàngal bunt bi nag benn bayt rek la bu jeexee beneen bunt moo ciy ñëw moom lañuy tuddee xilful fudul moom tamit benn bayti rek la bunt bi bii dafay tekki mën a mat ak kóllëre Seyduna Muhammad mooy bu mujj bi bu njëkk bi dafay tekki tamit ak njàmbaaram ndax xaleel bu am ñaar fukki at ñi woote xare nga nangoo dem xuus ca biir xare ba kooku njàmbaaram mënul koo paase kon Seydina Muhammad dafa juddoo ak njàmbaaram moo tax maam Khalifa Niass ne wa waafaa dikk na moom moom yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy sànni bi sihaamin ci fett kañ mu ne li yow mil fu jaar ca bisab fu jaar ba mooy bisab jàngal ba boo gisee ñu tuddee ko yowmul fu jaar dafa nekk xare bu ñu tàbbal ci weer wi yàlla xormaal parce que weer wi yàlla xormaal ñeenti weer la ñett ya ñoo toftaloo benn ba beddee ko moom kenn muy rajab ñi koy tuddee rajabul fardi ñett ya toftaloo mooy wori diggi tabaski léegi nag lii keroog naka jekk bi lislaam ñëwagut ñeenti weer yi yéeféer yi dañ ko daan xormaal duñ ci xeex duñ ci nangoo tamit def lu bon lislaam ñëw nag tamit gën a laat ko gën koo tamit jox gëdd jox ko xorma moo taxoon yonent bi xare mi li bari bëri bu ñeenti weer yi xasee am rek dootu ci xeexati bi mu xamee nag ñaar fukki xat ci dundam màkka dañoo amoon guerre bu mag ci diggante kinaanata ak ak ak ak xays léegi ñi ñii xeex booba yonentu baa ngi am ñaar fukki at léegi xeex boobu bi ngi xewoon ci weeru wor yi ci fukki fan ya ak ñeent léegi nag yonentu bi demoon na fekkee ji loola booba ki nekkoon kilifa ak Makka nekk ca kanam mooy Abdullah ibnu Juraan ñenn ñi ne déedéet Harbu ibnu Umayya te moo doon kilifa ga waaye daal lu ci mun di am fan yañ xeex du benn fan du ñaar du ñett fan yooya am na ci fan boo xam ne yonentu bi dem na fekkee ji xeex la am ñu wax ne daana sànni fett ñenn ñe ne da daan fori fett ya bu gaa yi sànnee fett moo dem di leen jëlil fett leen jox maam xalifa d'accord ma wa yar mii la dafa daan sànni moo tax ngay wax ne wa waafaat dikk na li yow mi fi jaar yin ca bisa li yow mi fi jaar ca bisab jengal ba bisab jeng ba ndax liñ ko tàbbal ci weer wuñ xormaal di wari yi yar mi muy sànni bi sihaamin ci fett fii ca bis ba wa neex ma baax na rimaawu sànni ka kon fariwutoon fett de da doon sànni fett comme ñu fa nekk kooku kon buntu bi jeex na ñaareeli buntu bi mu ngi tudd zikru sababi xilfil fudul lan mooy jàngatala ak sababu ngëñal deseel la ngëñal deseel lañ koy firee li ko loon màkk naka jekk yàlla dafa leen a màggal xormaal leen seeni nit naka jekk ñoo daan sangu nit ñi dañ daan roy ci ñoom depuis ca Ibrahima wàcc ba ci Ismaila wàcc ba ci banni jurhum yi wàcc tamit ba ci tay Abdul Muttalib fuñ ca mos a nekk rek ñooñu ñooy sang ñëpp. waxoon na la ko ci commencement ba ne ko sa maam yi ñoo doon weeri seen jamono wa judoodun dawaibun fil baraya kullu badrin bihil ana mustidaaw kon naka jekk dañaan roy ci ñoom léegi nag ci seen biir am kuñ daan tuddee Aasi ibnu Waayil bokk na ci ñi gën a bañ yonantu bi benn góor gu dëkk yaman bokk ci bani zabit doon jaay am marchandise am ñenn ñi lañ doon jaay gëléem la Aasi ibnu Waa'il nag leb ca jox ko dat ne bu jotee dana fay heure ba jot rek muy renvoyé dat ba heure bu ñu waa ji ñëwee rek mu renvoyé dat ba waa ji nag mer bi meree dem ba ci jabalu abi Qubays daju gudd la mu taxaw ca kawam ne yéen ñi nga xam ne nit ñi leen xamut dañoo yaakaar na yéenay seeni i kilifa te yéen a gën a tëriyaan ci àdduna bi du ngeen fay bor ay xorkat ngeen xas leen ba xaañ ci leen seen deret kañ leen nag ni mer xoote ñoo bu mag ca daaru nat wata ñu woote ko nag ba ñu wootee Abdullah ibnu Judaan ñu ne kër Abdullah ibnu Judaan sax lañ dajee moo doon seen kilifa ñu ne leen ñun nag ñooy sangi nit ñi nit ñi dañoo am ci ñun yaakaar at mu jot àdduna bi dañuy jóge ko fu ne ñëw di acci suñ kaaba gi nit ñi def ñu ñuy seeni kilifa ci wàllu diine ak ci wàllu àdduna waaye waaye ndono lu rëy lii jaaree ci suñu maam Ibrahima wàcc ci suñu maam Ismaila ba xekk ci ñun waaye waaye buñ ko yàq léegi daal nañu joxe sharta képp kuy jaayati li ngay jaay ku am njëg jëndal waaye bu kenn ci ñun lebet léegi nag ceroog ba ñuy fas loola ngir delloowaat seen bopp gëdd gañ doon woon ci maam yaag bàyya maam maam Khalifa Niass nee na yonantu bi li muy nekk nekk ndaw am ñaar fukki at ñëw na fekkee si loola joxe ci xalaatam moo tax ngay wax ne wakkaana nekkoon na shahidan di aji fekkee li xilfil fuduli ca ngëñal desel la yàlla koo yéemal Moustapha kuñ tànn ka fa kaana xamee na ci moom wafaawu ma tànn kaanaay tànn la dégg nga léegi nag bunt booba jeex na mi ngi dugg ci buntab ñaar fukki atam ak ñett jëm ñaar fukki atam ak ñeent jëm ba ñaar fukki atam ak juróom li fi xew loolu la maam xalifa bëgg a tënkal ci bayti yi ma lay jàngal mu ne nag su walla topp maanaam dellu na ngooy firee li saam jëm saam boo déggee mun a dellu na ndax demoon na fa waaye ma nga fa gëjoon ci atam fukki at ñaar ci dundam àndoon ak bàyyi taxam ba abu taalib ñi doon dem busra romboon labbe ba muy baxiraa mu wax lam leen waxoon ba waxoon Abu Talib ne ko nag ñun làbbe yëpp jàng nañu ci bisab tay bii ci weer wii ci heure bii ci waxtu wi mu jóg yonent yi dana fi jaar tukki damay lay conseillé nag bul dugg ak moom ci capital bi ndax damay ragal làbbe yi ray ko ndax man ni ma la ko mën a muñalee ñeneen ñi mënuñ koo muñee léegi nag booba la fa gëj nag ba ba muy am ñaar fukki at ak juróom ñu maanaam ci la fay door a delluwaat nii ba muy dem nag am na yu ca xew da ca xew mooy maam xalifa nee na mustanirun aji leeral la ko a ah, mustanirun aji leer la waaye la xew mooy taxul luuxoo dana keral ko afyaawu keru ngon yi ker yaa ngi koy keral abu ah, la neexa ngaan taxul luuxoo dana keral ko afyaawu keru niir yi sallallahu alayhi wa sallam maanaam afyaa jamoo fay yi yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy dem saam yàlla da ko xadul aw niir bu ko tiim lu naaj wi tàng tàng mu keral ko waaye nag yow tamit loo ko jege jege jege ci naaj wi ngay ne xataa boo ñëwoon sax ba dugg ca mbubbam ma tamit terewul yow ci naaj wi ngay ne moom rek kay nekk ca ker ga léegi nag am na ñaar fukki at ak juróom war a dellu saam lu soob dellu ga ndax bi ma amee ñaar fukki at ak juróom bàyyi tëxam bi ko yar bokk ak baayam nday ak baay di abu talib da ko woo ba mu ñëw mu ne ko doom mat ngaa denc su ma loxo jotoon sama gannaaw maa lay wutal soxna waaye réeré woon ne yoruma te yoruma ku yor te ku bëri njaboot la te ñàkk pire mooy yoroo yoroo ku yor léegi nag li ma fi xam mënoo ñàkk am soxna te man aw ma kon nag solution bi mooy rek dangay dem ci saydatuna Khadija ndax boo moom sax ci jaahiliya dara amagut ñu ngi ko daan tuddee tahiratu ku laab gi nga dem ci moom jéem mu jox la marchandise ràng la nga dem ete ji kon yonentoo njëkk a été bu dee tamit ñaareel bi mu dem defi moodu moodu jugee ko ci réew dem ci réew ngir dabi sa wërsëg kooku tamit yonentoo ko fi njëkk a def boo demee léegi bu la joxee nga dem saam yi lu ca ruus ñu dagale ko man la cee utal soxna yonentu bi ne ko ndax Xadija doon nangu mu ne ko waaw ba mu demee nag sayyidatuna Xadija gëmeewut ko yàlla ne ko ah bëgg loolu mu ne ko waaw waaw mu won ko ne su ma daan jox nit ñi benn yow fukk laa lay jox su ma daan jox nit ñi fukk yow téeméer laa lay jox yëkkati marchandise mu bëri ràng ko ko yonent bi war a dem nag eh, ut di ko jaay lu ca ruus mu man koo mu am waaye xadijatu ku yeewu la booba rek la wut benn jaamam bu góor buñ tuddee may saratu ne ko kaay àndal maag sang bii di muhammad waaye nag jëndulooxuma la jaaylooxuma la waxlooxuma la li ma la def loo rek mooy xoolal ma lépp loo gis ci moom nga note ko soo ñëwee nga nett li ma ko ndax am na daal lu may xeñtu ci moom ndax li ko waral nag ba mu wax loolu xadijatu dafa mos a tëdd ba guddi mu gént weer wi bàyyi ko ci asamaan rek daanu ci diggante ay ñaari tànkam mu dem ci benn labbe nettalil ko géntam mu ne ko ni nga wax su fekkee noonu la demee yonentu bi yàlla lay mujje yoon ni yow yaay nekk soxnaam te da ngeen njaboot li njabootam yëpp presque yaa leen di jur kon labbe yi am nañ xam-xam xadijatu nag marqué loola téye ko deuxièmement benn xew ma sa xew màkk mu dem ca am luy feeñ ci tànkam mu cet tànkam rek beneen làbbe ñëw ne ko yow dara warta feeñ ci yow ndax mu jóg yonantu yi yaay nekk soxnaam te bi maanaa da nga njaboot ak moom léegi nag moom booba nag nit ñaa nga fa bëri nañ màkka waaye màkka gi li muy bëri bëri ay nit yonantu muhammadu rasulullah la yaakaar ne moom la yàlla yónni booba nag na ko gudd bi diggante bi mat na fukki at ak juróom waaye booba jikko yi mu gis ci moom ak mbaax gi mu gis ci moom ak sell dana xam ne kii rek bu guddee fan dara dana xew léegi nag moo taxoon bi mu ñëwee ne ko damaa bëgg marchandise bi dem jaayi saam moom gëmeewul ko yàlla mu daan jox ñee fukk mu jox ko téeméer mu jàllar bi ko tamit jël ab jaamam di may saratu ne ko xoolal ma loo gis ci moom rek nag ma ko wax may saratu nag dem nañ ñëw nañu indil na ko ñetti xibaar ba ñeent bi ci njëkk nee na ko am na aw niiru tiim lu koy keral naaj yu tàng tàng niir waa ngi ko tiim yow tamit loo ko jege jege jege ci naaj wi ngay nekk mu ne ko benn mu ne ko ñaareelu xibaar bi dem nañu benn labbe bu ñu tuddee nasturaa moom ci boppam moo wax ma dégg ci sama nopp ne kii mooy mujj ak yonantu yi bi mu bàyyee ko Màkka ba di ñëw Saam rombut genn garab wala benn doj montagne lu dul ba ma ngi koy sujootal di ko màggal te gis naa ko mu toog ci garab goo xam ne ku dul ab yonantu di ca toog mu ne ko am naa ñaari xibaar mu ne ko ñetteel ba ba ñu ñëwee toog ca garab gi commerçant yi nekkoon dafa fekk ker gi yëpp nit ñi toog ci moom mii ci ak yaram gi ngay wax ci moom ak wooye fa mu toog ca pegg nit ña foofa dafa am naaj ñu gis rek toog tuuti rek bànqaas bi ëpp ker ci garab gi retourné wu ñëw keral ko bàyyi gaa yi ca naaj wax mu ne ko loolu de ñett la mu ne ko ñeenteel bi nag mooy ne maanaam marchandise bi ñu joxoon nga di ko jaay ñi koy jënd si ñëpp benn melo la ñuy sol yëre yu weex tal te li ma ci gën a yéem buñ ñëwee duñ waxante luñ ne nangam rek ñu fay buñ ne bu ne bii ñaata ñu ne dix mille ñu yëkkati fay buñ ne bii ñu ne cinquante mille ñu yëkkati fay duñ maanaam duñ waxante kon tabaarakallaahu dana mel ni Christmas ci Amérique nga xam ne euh, loo jaay rek mu jaar te tamit loo mën doon jaayee fukki dërëm mën nga koo jaayee téeméer léegi nag mu ne ko tamit ñi ngi jaay rek mais marchandise mi tamit wàññeekuut presque léegi nag Xadijatu n ko yow demal sa liggéey wàcc na bàyyi li ci des nag maa koy mottalil ak samay pexe te xam nga pexem jigéen dafa rëy jigéen moom ku mu pexeel mu rëcc rek pexe ma des na moo tax alxuraan li muy rëy rëy ñaari pexe rek la tudd pexem seytaane ak pexem jigéen waaye ba mu tuddee pexe bi seytaan dafa ne amul solo ndax boo ne a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim mu daw ne inna kayda seytaan kaana daifan waaye ba mu tuddee pexem jigéen dafa ne inna kayda kunna aziim yàlla mu màgg moomu nag lu mu ne màgg na loola bi maanaa lu ko gën a màgg amul dégg naa suñ Babacar si boo ne inna kaydu kunna mu ne déedéet inna kaydu kumba moo tax mu ne wa aadat xaduna xadijatun xadija maxahu mu ànd ak sayduna maanaam xadijatun xadija moo xadu masratun maysara maxahu mu ànd ak sayduna muhammad li namaa ngir dooleeku ay xibaar ndax parce que xadijatu amoon nag ñaari gént amoon na gént ñu firili ko ko ak la ko laaj ba waxoon muy gën nag amaat yeneen xibaar yu mën a tox ca yooya waaye wasaada dolleeku na namaawu xibaar ya noonu koy firee maanaam wasaada am na namaawu dolleeku xibaar ya ko su ko defee nag kon lam loon ut am na ko ndax wax naa léegi ne may saratu andil na ko ñeenti xibaar da ngay àbbal benn bi firi ndax wasaada namaaw namaaw dolleeku lay firi zaat dolleeku lay firi su ko defee nag nga àbbal benn bi firi dégg nga xibaar yooyu wax naa la ker ker ga ñaareel ba moo doon xaala wax na nastuura nastuura fële baxiraa waxoon waa fii nastuura moo wax fii ci yonantu bi xëy na raaw waxtu wam ko gisee ci la wax ne fa bi haasa ci kii intihaaw la dekkale li a ñeel yonantu yi fi la yonantu yi jeexee beneen yonantu dootul amati te booba ñaar fukki at ak juróom la am léegi nag may saratu ñib si na mi ngi war a indil xibaar yi sayyidatuna Xadija ma ko yónni woon moo tax mu ne wax akkaa nettali na may saratu may saratu maa raaw la nga xam ne gis na ko is xalalatu waxtu wa koy keral af ngoon ya fii seen ker ya waxtu wa koy car yay caral loolu lépp mu indil ko ko ak la nastuura wax ak marchandise man doon jaay ak melokaana ya ko doon jënd ak yëpp mu indil ko ko xadijatu ne ko yow sa ñaan wàcc na bàyyi ci des ma mottali ko di dafa niru aljana ci wàllu tàppoo la euh, noflaay la dajee la te nag loolu lépp xeet la ci aljana ndax xeet la ci xéewal yéli na teqalikoo la ñaq la coono la loolu xeet la ci safara moo tax yàlla defar ñaan gi muy guddi ne subhaanallati asra bi abdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa allati barakna hawlahu dégg nga léegi nag def na isra jeex na léegi mi ngi dugg ci mi'raaj bi ndax bu meenu tukki la moom tukki ñaari tukki tukki mu njëkk mi suuf rek moo ko bokk tukkeem ñaareel mi asamaan rek ko bokk tukki mu njëkk mi moom moo ko nettalil boppam moo wax ne dama tëdd ci néeg ummu haani Seydina euh, Aliou moo ko euh, rakku Seydina Aliou la ñoo bokk ñoo magu Seydina Aliou la ñoo jigéenu Seydina Aliou la ñoom ñaar ñoo bokk bàyyi. Mm-hmm. Abu Taalib moo leen jur. bi mu tëddee foofa nag mu ne ba guddi gi xaaj ci la yëg lu jaar ci kaw nii bi traite kii bi rek wàcc. di ko Jibril la. ñëw ne ko sa borom de moo ma xoone naa la ko yóbbul. dafa la sàkku ji pour nga dem gane ji ko. Mm-hmm. mu ne mu yóbbu ma ca sam-sam. Mm-hmm. xar sama dënn bi. su ko defee léegi. génne ci lumbu ñu raxas ko ñu delloowaat ko ci ma jàpp sama jàppee ba pare mu gaare benn daaba boo xam ne fasa ko moo ëpp maanaam fasa ko ëpp waaye moom moo ëpp mbaam hmm. mooy bax la su ko defee nag mu ni ma waral ma ci boole maag ñaar fukki junne malaaka ak juróom ñu escorté ma ci ndeyjoor hmm. ci càmmooy ci kanam ci gannaaw ñi ànd ak Mikaayil ñi ànd ak Israfil ñi ànd ak Jibril ñu départ am na nag ay escale waaye dafa gudd boo delloo ci saraay rek dañ la ko andil def na escale ca suusa yonentu yàlla Iisaa juddoo muy baytu laxmin soriwut a ci Gaza foofu julli fa gis nga ko tamit eh, def na ay escale ci yoon wi yoo xam ne wàcc na fa julli ñu am ñu ko présenté waaye nag lu ci mën di am daal fi mu teeralee mooy ca eh, mooy ca maanaam masjidul aqsa ba mu wàccee mu ne jibril jël daaba ji xeew ko ci garab ya nekk foofa ma dugg fekk fa eh, yonentu yëpp ci mursaluna yi ak aw yi cent vingt quatre mille ñi def nag juróom-ñaari sàppe ñu ñu yónni hut ña ñoo nekk ñeenti sàppe muy anbiyaaw ya ñu ñu yónni ña nekk ñetti sàppe ya ma taxaw julli leen ñaari rakka bañ paree nag Moussa ne ko xanaa lum néew néew nga ñoo waar nag yonent bi bokk na ci la meewaa ne xayrukum xayrukum li waa wa ana xayrukum li ahlihi ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam rek te maay ki gën ci sama njaboot xam nga ni maa la gën neexut a wax waaye boo ko waxee noonu dana ci déggee niñ ko gënee mm. léegi nag ba mu paree euh, foofa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli leen ñaar rakka am na sax ñuy jéem di jëmee naan waaw naka la yonent bi jëlee julli di jiite nit ñi julli njuumte la yonent jëlee wutoon julli li ma julli xeetam la doon julli waaye na fi julli naka jekk daan julli tamit dafa ak ñeenti rakka timis ak geeeg xeetam yi rek ñoo ko xam julleeg ñeenti rakka ak julleeg ñetti rakka xeetu yonent bi rek ñoo ko xam li ma julli googa nag li julli moom la doon jëli moo tax ba mu ñëwee tamit lañ fi fekkoon bàyyi bàyyiwut ko mu indi naafila yi ba mu fa ñëwee tamit ba mu demee tamit la mu jëli tamit bàyyiwut ko mu boole leen ñoom ñaar ñëpp ñu bool di ko def. seetlu nga ko. léegi nag bi mu paree isra wu jeex na mu war a def nag li ñuy tuddee maanaam mi'raaj. foofa nag werante yi dafa cee am ndax ba muy dem buraax la yéeg am na werante. ñeen dañu ne lu ñu tuddee mi'raaj lañ ko indil mooy loo xam ne ab julit buy sukkuraat moom lañ koy wan ci la plan wu aljana nekk. mu koy xool ba bu ñuy rocc roox ga du ko yëg moo tax bu jullit bu dee nga ci bëri sa dafay buqee bu ko defee nag léegi nag loolu lañ ko andil mu mu yëg ca loola dem waaye dafay am ci riwaay yoo xam ne boo ci seet day wax départ eh, jibril rek ba ca sidratul muntaha am ci yoo xam ne dana wane ne jibril mi ngi xem ci mi ngi xem ci mi ngi mi ngi mi ngi xem ci masjidul aqsa euh, ñi door a indi mihraj moomu del mu mu mu door koo yóbbu léegi nag boo muy def mihraj yi na lay wax si nii ci asamaan yaag juróom-ñaari asamaan yaag asamaan su ne ak yonantu bam ca fekk moo tax mu ne wa isa staftaha bu sàkkoo ubbilu aminu ku ñu xóolu ko samaan asamaan dégg nga raxaba tafagal maawoo ànd ak moom anbiyaawu yonantu yi bi ci sàkku ubbi Louga sababu sàkku ubbi bu buñ fëggee kii bi rek buntu bi rek su ko defee léegi ñu tatagal ko nekkoo kan la mu ne man a Jibril koo ànd ak mu ne Seydina Muhammad ay yónni nañ ko kon amul kenn koo réere li ngay laaj kay mooy yónni nañ koom am déet ne waaw yónni nañ ko ñu ne neexmal maji u jaa ki ñëw baax na xeg si neexmal maji u jaa ñu fekk ci asamaan su njëkk sa nag aadama moom lay wax si nii mm-hmm. wa talaqaahu dajeeg naag moom aadamu aadama mm-hmm. ci su njëkk sax su ma Iisaa topp Iisaa sa ñaareel ba su ma nooxun topp noox ca ñetteel ba wa yuusufa ak yuusufa ca ñeenteel ba ñoom ñii ñëpp nag ak asfiyaaw ñu sell lañ ñu baax lañ ñii la fekk ci asamaan si nii mu ne bi mu fekkee aadama aadama am nañu ko féetee ndeyjoor mbooloo am mbooloo bu ko féetee càmmooy yi doon tooy nettali mu ne aadama bu xoolee ndeyjooram rek ree bu xoolee càmmooyam rek jooy ndekee ña ko féetee ndeyjoor mooy ña war a dem aljana ci aw ay doomam parce que moo jur ñëpp doom aadama yi hmm. ña war a dem safara mooy ña ko féetee mooy hmm. bu leen xoolee rek jooy bu xoolee ñee rek timit ree yonent tooy nettali bi mu ñëwee mu lii laa fekk aadama yi def hmm. sallallahu alayhi wa sallam nañ bokk ci ña ko féetee ndeyjoor léegi bu ñaareel bu fekk fa Isa nooxin ñetteel ba yusufa ñeenteel ba ma haarun topp haaruna suma muusa topp muusa suma wa nga wa ibrahim ibrahim sa juróom ñaare ba wa huwa moom alxalilu mooy xarit ba neex na baax na li xaaw dajeega ñii la yonent bi fekk ci asamaan am na yeneen riwaay yoo xam ne am na werante ci am nañu dégg nga de am na am na beneen riwaay boo xam ne dafay wuute am na ñu jàpp ne aadama la fekk ci bu njëkk indi na ko fii sax mm-hmm. ñaareel ba mu fekk fa Iisaa ak Yaxya mm-hmm. beneen mu fekk fa maanaam Yuusufa mm-hmm. au lieu que Noox Yuusufa fale mu fekk fa maanaam Idrisa be mu fekk fa Haaruna bi mu fekk fa Muusaa bi mu fekk fa Ibrahim waaye lu ci mun di am juróom-ñaari yonantu yi mu fekk ci juróom-ñaari asamaan yi yonantu bu ci nekk yonantu dafa am lu mu niroog yow ci sa dund moo tax nga fekk ko ci asamaan boo seetee aadama dafa niroog yonantu bi njëlbeen aadama la fekk ci première asamaan muy njëlbeenu asamaan aadama ak yonantu bi dañoo niroo njëlbeen njëlbeen ak aadama moo doon noflaay bànneex nekk ci xéewal ñu dugal ko aljana am benn coono waaye mujj ak aadama mooy coono noonam ba fekk ko fa iblis jax-jaxal ko tabaarakallaahu nekk fa di ko kii ba yàqal ko mm-hmm. mu génnee ko mu génnee ko mu génne ko ci kër ak noflaayam mm-hmm. kër ak jàmmam gi kër ak xéewalam gi ba mu wàcc ci suuf fii nekk ci ak tumuranke coono bu métti loolu tamit yonentu bi loolu mooy njëlbeenam mm-hmm. yonentu bi ak njëlbeenam dafa neexoon ndax dafa judd ci biir ay bokkam fi mu amee benn at ba fi mu amee ñeent fukki at ñëpp ko bëgg xamul kenn ku ko noonu ñëpp ay xaritam mu mel ni ku nekk ci aljana ay biti waaye keroog li seen noonu yi na commencé dem yahudi yi tamit yàlla xiir ko ci kaw mushrikuun yi dal ci kaw ñu koy wax lu bon di ko jeex lu bon ca la nekk ca la nekk ca la nekk ba génn àdduna kon niroo googu mu niroog aadama njëlbeen moo waral mu fekk aadama ci asamaan su njëkk boo seetee tamit moo yonentu yàlla Isa dañoo niroo ci marxalatu saaniya boo seetee yonentu yàlla Isa yàlla da ko nattu woon yahudi ya bañ ko ba xitte woo woon ray ko Euh, ba euh, maanaam façon bu nekk def nañ ko ko ba yàlla ba wax nañ sax ñoom dañu wax ne ñoo ko rey ak lañ ko la ci moom ak ñëpp àdduna ñëpp danoon dox moom di tukki rek fu ne muy def bañ siiwal ne moo ko rey yàlla ne déedéet wa ma qataluhu wa ma salabu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum yonent bi tamit ku métti la marxalatu saaniya yàlla da ko boole yahood ya ñoom tamit ñi xitti ko ngir rey ko gis nga gàtt boobu mm-hmm. soxna si mm-hmm. defaloon ko mm-hmm. euh, tabarakallahu saynabu bintu xaaris def ci gàtt bi tooke ñëw andil ko ko ne ko lii maa la ko dimbalee ci xare bi ci banni xawaasi ndeke mu foog ne dëgg la ci moom ndeketoo dañ koo tooke ba gis nga ca mos na ca sax ñu ne waaye yonent bi daana wax ne maasalat ukkulatu xaybar tuaawidu nii xata xata qataan min ni hasal bulu wa fi raayati hasal xulqum mu ne lekk ak xaybar ga dañu di am jeexital ci sama yaram bi ba mu dina dagg sama ñaari kii nii kon kon niroo naag yonentu yàlla Iisaa ni ko yàlla nattoo yahoodi bañ bëggoon a faat ba kanam mm-hmm. moom mii tamit yàlla nattoo na ko yahoodi bañ bëgg a faat ba kanam mm-hmm. doon ko ko jëlee tamit ci yonentu yàlla nooxin mm-hmm. ak yonentu yàlla yuusufa su ma gudd lu toon wax la kenn ku nekk ni niroog yonent bi ba tax na fenn fu nekk mu fekk la ci asamaan soosa dégg nga waaye lu ci mun di xam su ma saara topp dox nañ ñoom ñaar fa waa fa yaa ñi dikkal asidrata déem nga alxara bay aji siiw mm. waxiyam moom la tii mooy déem nga nga xam ne ilayha xem na ci moom intihaawu daytal ga mm. mooy déem goo xam ne dara mosut koo daree ko ci suuf mm-hmm. traversé ko mm. dara musut koo bàyyeekoo ci kaw jëm suuf waa kaw foofu mooy seen xemuwaay waa suuf tamit foofu mooy seen xemuwaay moo tax ñu kon si tëritul mun taxa mm-hmm. yonent maa ngi fekk xob yaa nga mel ni xob yi ci noppi ñay ci rëyaay mm-hmm. yonentu yàlla Ibrahima nga jël gannaawam nga wéer ko ca déem mm-hmm. di jàngal ay xale parce que képp ku judd te mësoo rëguloo donte doomi xéeféer nga sag ndaw foofa nga koy mottale yonentu yàlla kii di la jàngal ñu nekk fa di jàng moo tax nga dégg ci julli ñu ñaan na nga ko def maanaam fii kafaarati Ibrahim ci yarab suñu maam Ibrahima mu nekk fa nag yonent bi nag léegi nag fekk foofa kii euh, fekk foofa kii euh, dégg nga fekk foofa maanaam daytal mooy daytal ga bañ yegsee foofa rek lay wax si nii bañ fa yegsee dégg nga loo teg fantaha daytal na jibrilu jibril al aminu ku ñu wóolu ko ilayha ci déem ga mm-hmm. waaye wali taaxa aji nekk la ñeexal yonent bi mm-hmm. irtiqaawu ak yéeg min baax du ci gannaaw kaana gi doon ko mm. wala ne nga ne ba kaana nag na irtiqaawu ak yéeg li taxa ñeel taxa min baax du ca gannaaw mm. ba tey dégg nga mm. mu ne gannaaw bi lii xewee tamit nag yonent bi moom yéeg na yéeg ca kaw dem continuer te foofu kenn su ko passé jibril ne yonent bi ne ko waa yow yaa tële ab xarit ànd ndora yow yaa ma jëlee fële ca Makka ca masjidul xaraam xam moo tax xam nga alquran bi muy wax moom nekkul fa nekkul fa naan néeg ummu haa nii yéeg yi moom dafa ne min masjidil haram rek mm. parce que lépp lu bokk ci xurum bi ci ca jàkka ja la bokk mm. moo tax moom mu ne min masjidil haram ndax loolu kon néeg néeg ummu haa nii jàkka ja la bokk mm. xam nga fu jàkka ji xam yëpp yontu fu ko piqueté woon ah. lu sori la foofa julli rek yaa ngi si biir jàkka ji yaa xurum bi léegi nag mu ne ko man fii laay mu ne ko yow yaa ngi ma jëlee foofa jaar ak man présenté ma yonantu yi jaar ak man yéeg ak man asamaan jaar man ba yegg si ngay da ngay yem fi ah mën a xamee mu ne ko su ma jéggee benn jéggi ba rek leer aras dana ma lakk comme ni safar di lakkee njarweñ ah ndax wa maa minnaa illaa lahu maqaamun ma'luum mu ne ko kon nag baax na foofu rek la yonent bi déggee kàddu Aboubacar ak kàddu Omar ñiy wax mu ne sama gars yi kañ lañ maa romb bay dem ñu ne ko sa gars yi mënuñu xeg si fii de yàlla la ko teralee ngir eh, eh, dalalee ko sa xel mm-hmm. mu commence na di xuus ci rab ci ci ci leer yi mm-hmm. di xuus tamit tabaarakalaaw ci xijaab yi ba dégg yëngatu xalimbaag yàlla ga mm-hmm. dama dem ba passé raf-raf dama dem ba nga xam ne tabaarakallaahu yàlla bu doon am néeg yonent bi taxaw na ca bunt ba muy lam-lamee nag ne lu ma ko war a nuyoo ndax su ma ne asalaamaaleyka day mel ni yàlla góor la su ma ne asalaamaaleyka day mel ni yàlla jigéen la ci la yàlla nag tàbbal ca xol ba ne ko waxal attahiyaatu lillahi zakiyaatu lillahi tayibaatu salawaatu lillahi ba mu waxee loolu yàlla fay ko ne ko asalaamu aleyka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakaatuhu malaaka yexeen woon xaras nag dégg tamit nuyoo <laughs> ak sa xeet wi bu ngeen xamee ñaari rakka bay toog ngeen wax loolu su nga nee ba julli gi jeex tamit ngay wax loolu loolu rek moo tax yaatu dégg nga de moo tax mu ne su ma saaraa topp dox nañ ñoom ñaar fa waa fa yaa dikkal nañ asida sa déem nga alkara bay aji siiw mu hiya moom alati mooy déem nga nga xam ne ilayha ca moom e- intihaaw daytal ba ilayha ci moom la xam dégg nga mam day foofu na fantaxaa daytal na ak jibrilu jibril mhm. aminu ku ni xuula ko ilayha ca déem ga mhm. waaye wali wali taaxa aji nekk la ñeexal yonantu bi irtiqaaw ak xéeg min baax du sa gannaaw na ne nga ne wax kaana xamee na muy taam mhm. irtiqaaw ak xéeg li taaxa ñeexal yonantu min ca gannaaw léegi nag loo teg wa wara ah wara a gis na mawlaahu boromam karimu bu tedd ba yaa nan ci jàkkaarle foofa na yonantu bi gis na fa yàlla xad xakaa ñett li na za lii damaaw ñu jut nañ fi siirati ci siira alam aw siira yi d'accord nañ ci de bi mu ñëwee nag sayyidatuna Aïcha ko mën a laaj la laaj na ko ndax gis nga sa borom mu ne ko déedéet gisuma ko nag moo tax Aïcha moom ba ni mu génn àdduna dafa daan wax ne ku ne yonantu bi gis na yàlla rek waxuloo dëgg moom loolu la gëm naka jekk waaye nag ñu ne yonantu dafa da day wax daan moo moo ñu jàngal ne xaatibin naasa ala qadri xuqulihim da ngay wax ak nit ñi fi seen xel xem te boo seetee Aïcha bi muy wax li juróom-benni xat la xam ndax moom fii nii yonantu bi xadijatu génne àdduna yonantu juróom-benni xatam la mooy toll juróom fukki at yonantu bi ci dund ak ci la ko takkee xale bu am nag juróom-benni fukki at boo ne ko gis naa yàlla du ko mën a du ko mën a xam ñu ne ñu ne yoon fa wax ne dégg nga waaye ibnu abbas mi nga xam ne yonantoo ko woon ba mu ñëw mu ne ko ŋaxal mu ŋax mu ñaan tafli ca gémmañ nga ne yow yàlla yàlla nga ko déggaloo taawi la alquran moom moo wax ne yonantu bi gis na yàlla ku ko wax tamit moom nga ko déggee te moom ci si yonent la ko jëlee te moom nag moom lañ tuddee xibrul umma mooy fóodee xeet wi lu wax ci diina gi ñu bàyyi ko ci moo tax mu ne wax araahu wan na ko mawlaahu boromam aayatuhu kawtéefam ya mandak kubra yu màgg ya wasul fan ak jege was daa def dolleeku na àlaaw xéewal ya xéewal ya gën di dolleeku rek yàlla wan na ko fa kawtéef yu rëy rëy moom yonent bi yoo xam ne kenn mënu ko nettali aw daa dénk na ba tey laahu yàlla sadroo dënëm ba min ulumin ci xam wa min asrarin ciy mbóot wala mu wamin asaari xikmatin ci mbooti xam-xamu njariñ maa ngi saaw la ko soob yàlla nag foofa nag dénk na ko fa xam-xam yoo xam ne kenn du ko wax foofa la ko joxee ñetti xam-xam maam xalifa tudd ci juus bi xam-xam bu njëkk bi dafa ne ko euh, moom ñu waxal waxal lépp bu ci nëbbu dara fasdaa bi ma tumal moom tamit loola wax na ko ba dara nëbbuwut ci bu ci doon sayoon nëbbu doon nëbbu xam ba sa wa tawalaa ndax dafa ñëw ngir xas ko xaw koo yedd ci gumba ba ummi maktuum bu doon nëbbu dana nëbbu tabat yadaa ndax dafa ñëw ngir xas bàyyi taxam bu bokk ak bàyyam ndey ak bàyyi bu doon nëbbu dana nëbbu xala xulaa xulaa onze bi rabil falaq xulaa onze bi rabil naas yi la ca xewoon bu doon nëbbu tamit dana nëbbu maakaan li nabiin an yakuna lahu asra xataa yusqina fil ardi ni ko la maawu tafsir yi indi kon dem na ba yàlla ne mat na nëbbooti dara al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati beneen bi nag da ko ne ko dama la ci tànnaloo mm-hmm. su la neexee jotalal bu la neexee nëbbal ku la ci neex jotalal ku la ci neex nëbbal ba muy dund tamit noonu la ko defee waaye loolu du wut luy dagg ba muy dund ña ko ca neex wana leen ca jox leen ca ku mel ni Ali ibnu Abi Talib ku mel ni Abi Hurayra ba mu taxaw naan jëlee naa ci sama sot bi ñaari mbuus benn bi yullil naa leen ko ba mu jeex benn bi su ma ci yulli woon lu toll ni benn kii rek ngeen dagg sama baat bi Abi Hurayra wax loola loolu booy kon xam bi ko yonent bi jagleel la ba tey tamit ku mel ne ali ibnu abi talib yonent bi yonent bi yëral na ko ci loo xam ne waxut ko aboubacar ba daana wax ne yaa ruba jawharin almin law abu xubbihi la qiila li anta mi man yaabudul wasana wala stahala almuslim wala stahala rijal muslimuna dami yaraw na aqbaha maa yaatunahu xasana kon kooku bu bu si loolu tamit yàlla yonentoo ko ko jagleel waaye loolu na daggut ba nim ko nim sañee woon a jotal ca ak nëbbu ca ba tey ba mu sàngoo suuf mu ngi continuer di góor feeñu ay góor yi yàlla di leen ca nëbbu ñi lii mu lii mu nëbbu leen ca lii mu jotal leen ca ku mel ni xisbul baxari bi mu joxe ak bu bu mel ni salaatul faatih bi mu jox seexu tijaan ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon lee moom duhut luy tagg waaye lële moom muy wàllu sariya bi mi ngi xem ci génn àdduna yonent bi ba mu kenn du ci yokkati benn xaraf ndax mat na sëkk kenn du dootu sañe tamit di waxati naan julli leen nag bàyyi leen lii ak loolu parce que mat na waaye leen ak moom moom ba ba àdduna tukki ku ko neex rek mën na laa feeñu moo tax yeneen secret yi bëri bañ a xem ci loola secret yi fekkoon ne foofa rek foofa rek lay xem mm-hmm. beneen bi nag moom dañ ne ko sa jëmm ji rek moo ko xattan lu toll ni tarfatul ayni bu ko ci yëral kenn ndax jëmm ju mi tegu ci kawam rek mu seey yeneen yonent yi sax nañ ko ñetti xam-xam yi nag lañ boole benn bi moo tudd ilmu sharia benn bi moo tudd ilmul xaqiqa benn bi moo tudd sirul qadri ilmu nag moom joxe na ko ba mat ilmul xaqiqa nag moom dañ ko ko tànnaloo al mu al mu sirul qadri yow jëmuñu rek ko xattan moo tax même benn yonantu xattanu ko yonantu yàlla nooxin moom la kon kii moom la bëggoon yonantu yàlla noox moom la bëggoon yàlla yëral ko yàlla yedd ko ne ko sa jëmu ji xattanut ko mooy dafa waxoon yàlla ne ko yaa ma waxoon ne sama nit ñi duñu àl ko te inam nii min ahli wa inna wa inna waxdaka alxaq wa anta xakamul xakim yàlla ne xam ne bokku ci li ma la a xamal li li ma la xamal mooy sirul qadri bi <laughs> hmm. de hmm. loolu yonantu bi rek ko attan moo tax mu ne walahu aji nekk la ñaal ko isra wu rañaan fil manaami ci nelaw yonent bi dugg ne wenn yoon la rañaan de waaye rañaan ak yeew jëmmu jaag rooxu ga yëpp ànd yéeg ci kaw albura mu wàcc jiite ay yonantu yéeg ci kaw asamaan dem ba jàkkaarloo borom wenn yoon waaye nag e, rañaan nag rooxu ga rek dem te jëmmu ja demut kooku toll na ci limab jàlla fanweeri yoon ak ñett la yonantu bi rañaan soo xam ne rooxu ga rek a def waay waaye waaye waaye kii nga dem dégg nga aydan ba tey dégg nga euh, ngay dégg nga aydan ba tey xayru haasa gudul gi nag xam nga dafa ne walu ak nekk lañu israawu ak rañaan aydan ba tey xayru haasa gudul gi fil manaami ci nelaw waaye kilaaxuma mu ci ñoom ñaar israawu rañaan la israawu yaqazaan ga ak israawu nawmu ga ñaar yëpp rañaan la fii gën a gu ci nekk yàlla jagleel na ko ci furidat farataaleef na fii si laylate ci gila guddi alxam alxamsu gay juróom Euh, déedéet euh, al fi lay fi lay si guddi gi di alxamsa julli juróom yi maanaam farataal nañ ci guddi gu tedd gii julli juróom ci lañ ko joxe was daanat dégg nga euh, dégg dolleeku na mu ngi bàyyi ko ci saadar rek dégg nga bi ma baaxaa ci taaram ba almilatu yoon wa alxaraaw bay aji siiw mooy nag ci rañaan gi ci la ci la lislaam yokkuwaatoo ab taar taar lislaam gën naa gën naa dolleekuwaat bismillah dégg de Euh, ndax lislaam l'islam imaginer lislaam bu amul julli rek mm. kon bu julli ñëwee day gën a rafet bu njëkk ba l'islam yomboon na ngay tudd baatu seede bi rek tëdd nelaw amul def dara mujj gi nag l'islam ñëw mu am tudd baatu seede bi rek boole kook di euh, waaye amut amut xare ji moo tax ñu ne kufu aydiyakum wa aqimu salaata mm-hmm. mu jigi nag mu am tudd baatu seede bi boo rek ku téye jaar si dem xare ji mm-hmm. mu jigi nag julli joxe afaka ñëw yeneen yi ñëw par nànk rek comme ni nga ko jàngee ci yeneen téere yi rek mm-hmm. loolu bu ñu demee ba lii sax rek bañ miin ko rek la neen ñëw boo gisee ñun li ñu yonantu bi indi ñu xattan ko dafa ñëw par étape ñeneen ñëw na ñëpp boo gisee ñoom la leen seen yonantu yi ñëw ñëpp sànku na lépp fa ñëw yoon ndox yoon ñëw ndox yoon yoon tawreet ak lépp wenn yoon la wàcc lañ leen di farataal yëpp di leen koy tere ñu wax ko wenn yoon day naqaree xanu ñun nag dañuy indi benn ñu pratiqué ko bañ mokkal ko gisoo baatu seede bi rek magee na julli presque fukki at waaw bi ñeen fukki at lañ ko yónni te juróom fukki at lañ indi julli bañ nekkee ci baatu seede bi tawhid parce que dafa jafe tawhid duñ ko jàng benn fan fukki at la yonent bi jàngale tawhid ba nga xam ne léegi nit ñëpp bokkaale jeex na ci kii xel yi leer ñu door a wax na ne léegi li ngeen doon wéetal yow la ngeen pratiqué ko julli door a ñëw ñu nekk ci julli ñaari xat jëm noonu kii door a ñëw asaka asaka dafa ñëw ñu teg ci ay weer rek xoor dañ mokkal ko parce que joxe rek moom yomb na dañ koy dañ koy tàmmaloon nit ñi rek wax ñu joxe rek la bu ko defee nag weeru koor door a ñëw ñoom ñoo bokk menn at ñu nekk ca ci weeru koor julli weer weeru koor kon joxe asaka juróom-ñetti at ba xel yi gën koo mi parce que juróom-ñeenti la at ba aj màkk a ñëw waaw aj màkk moom parce que yàggut ko def rek génn àdduna ñeen ak ñoom lépp a ñëwandoor moo tax mënuñ ko xàttanuñ ko moo tax mu ne furidat farataaleef na fii di laylati ci gii guddi alxamsa julli juróom yi was daana dolleeku na almillatu yoon wa alxaraaw bay ak gisub ma baaxaa ca taaram ba taar ba gën a rafet lépp rafet wa awaanin ay ndab salaasatin yay ñett xat asat ko dikkal na yonent bi yonent bi ne foofa gis nga yàlla ba tey rek ñun ñëpp yàlla la ñuy sàccee jikko saa yoo amee gan goo fonk mu gane si la wàcc loolu njëkk a def demal yónnee boisson waaye gis nga boisson yi tamit dañu wutee loo jënd lépp fii def ko ay coca doo jëf lépp tamit def ko fanta da ngay jaxase moom tamit mu ñëw ni yàlla ne andi leen ko ñetti ndab andi leen boisson boo xam ne fanta la andi leen soow ñu indi ñetti façon ndab yu wutee benn ba labanun soow rek la xaalisun bu sell benn ba xamrun sàngara la benn ba maa u ndox la kon ñetti ñetti kaas la ko yàlla terale léegi nag ñu tànn loo ko ne yow booy naan mm. xam nga ba tey day dana bu indee boisson ñi kenn ku ne booy naan mm. yonentu bi ne man ne ndox laay naan mm. moo tax mu ne waqat ixtaara tànn na fitrata diine bindab diini lama shariba ba mu naan ne ris la soow ma xaakata nak nii al yaaw kaw yi a dégg nga de maanaam ñu ne bu tànnoon ñu ne ko si la ko yàlla ne ko ah, li nga tànn de mooy fitratu sa xeet wi ndax su fekkoon ne da ngaa tànnoon sàngara li xëpp sa xeet wi danañ jaw comme moom naan toon sàngara ak tey li naan sàngara kon bu naanoon ba musiba bëgg naa am <laughs> mu ne ko tamit bu fekkoon da ngaa naanoon ndox mi li ëpp sa xeet yi dañuy dee ci ndox dañuy lam léegi nag comme yow soow nga xam ne dafa sat ci mu nekk loo xam ne naturel la comme na ko yàlla bindee ci noona ah. te kii wut ba kii moom nga tànn loolu tamit ci la ñu tànn sa xeet yi muy koo xam ne dafa nekk xeetu diggu doomu duñ jël lu suufee ba ëpp waaye duñ jël lu kawe ba ëpp ummatan wasatan li takunu shuhada ala nnaas wa yakuna rasulu aleykum shahidan dégg nga de léegi nag rañaan gi jeex na miiraaj gi jeex na lépp pare na nag naka jekk nag ku mos a xam xéewal gane gi ku gane gi sa xarit bu ñëw da nga nettali nettali fi lañ fekk di ñu ñëw nag laaj ko ne ko waaw nu mbir yee dem nag moom te muy nettali <laughs> su ma waafaa topp dikk na yu xadis bi solo naasa ni ñu sukkura ngir sant yàlla bi ajibin ci kéemtaan wa ankara wi dina ax bi yaaw dof ya ñu nu commencé nettali la la ko lam fa gis ak lam fa dégg ak la ko fa borom bi jox yëpp waaye nag du wutoon bàkku da doon sant yàlla rek mm-hmm. ñëpp téye seen gémmañ abi lahab moom moo ne ko ndax lii nga wax ne da ngaa demoon baytil muqaddas ci guddi gi ñëw ci guddi gi su ma dajalee nit ñëpp da nga ko ñemee waxaat mu ne ko maa ko boo ko dajalee nit ñi ma waxaat ko kaw moom booba ñoom xam ne bu ñu daan dem rek dem gi rek dox ab weer dikk bi rek jële dox ab weer yonent benn guddi abi lahab ne am naa occasion kii am naa occasion boo xam ne bu ko waxee rek ñëpp génn ci moom <laughs> moo taxoon <laughs> te loolu rek la bëggoon mu ne ko kaay da xool ñëpp moom nag mu ne bala maa dem ci kenn moo njëkk a dem ci Aboubacar ne ko yow mii de li ngay mën a dëgg dëggal sa waa ji sa waa ji wax na loo xam ne kenn ñi mu ko xaal loolu la ci ànd ak moom ñoom <laughs> nee na baytul muqaddas demoon démb ñëw ci guddi gi te yow réeri woo yoon wi xam nga nim mel Aboubacar ku ñor la ne ko man ci sama di ma indil ay xibaar yu bàyyi ko ci asamaan mm. nam soree mm. ma di ko gëm kii bu ma waxoon dem naa ci asamaan sax ma gëm ko yonent bi nag mu ngoog yaa wax dëgg na asamaan sax laa demoon <laughs> dama ko mën toon a wax ndax booba seen xel xeggut ci waaw ndeysaan si aboubacar moo tax mu ne wa saddaqa dëggal na lëkoo ñel ko xat yëpp aboubacar moo ko moo ko dëggal ci loolu moo waral tamit euh, dégg nga dox yi na ko bi siddiq ci dëggalaa kon ba min ha ci dëggal googa ci sababu dëggal googa ci la ñu ko xëyee siddiq maam xalifa na di aw tur wa xoom bi tur tur ñu ko xooxee baax na kon moom mooy ki njëkk dëggal yonantu bi ci loola moo war tam ñu tuddee ko siddiq léegi nag toujours xam nga boo waxee dara dinañ la laaj andi preuve ndax yonantu bi mel dem naa baytil muqaddas ñu dagale mbooloo ma yëpp mun leen dem naa fa ñu mujjiti mun leen dem naa sax ci asamaan gaa yi nag ne ko ñun de suñ njëgg ma demoon na te yaakaar naa jamono ji war nañoo toll ci ñib si dañ lay laaj nag kañ la ñu ñëw xanaa war nga leen romb comme yaa ñoom yéen a bokk yoon yonent bi ne leen romb naa seen gëlëm yi seen njëgg maa ngi ñëw bu neexee yàlla àllarba buy jant bii so mooy tombeek ñoom ñu dugg ci dëkk bi lii ma wax leen moom li kenn mënu koo dindi bu àllarbaa daal bu jant bi so mooy tolloo seen njëgg mi ñëw même sama daaba gi sax tiital na leen ba ma ñëw dafa jaar seen pegg ñoom sax ñi daw ba tasaaroo waaye nag àllarba danañ ñëw hmm. ñaareel ba tamit ñu ne ko waa yow baytul muqaddas nga waxoon dem nga fa nu mel mu mel ni bañ ko wax moom guddi la fa demoon waaye seetluwut ko ñu defal ko lu ñu tuddee payul muqaabala mooy dañoo dessin dëkk bi ci kanamam dañ ko mel ni lu ko mu teg ko ci kanamam ne leen jàkka ji ñànga mi bunt la garab sàngam moo dend ak moom doj sàngam moo dend ak moom ñoom ñëpp ne ah loolu dëgg la waaye lii de mu wax moom wax dëgg yàlla moo fa nekk xam naa nag li mu wax daal dara ko teewut ceeg loola léegi nag ñu ne waaye ba lañ ko mën dëggal comme wax na ne njëkk mi dana ñëw suba ci ngoon alarba ci ngoon nañ xaar àllarba soreetu bu àllarbaa ci ngoon su fekkee ñëw nañ ñu xam ne fa lay la am bu ñëwul nag ñu xam ne ñëwul mm-hmm. même sax booba xaw nañoo am empêchement ba tax na keroog téyel nañ ko jant bi mm-hmm. dig dañoo xaw a tardé jant bi war a bëgg soo te gaa yi ñëw ñu mm-hmm. dafañ nekk sori na te bàyyee jant ba ca nem dinañ dugg si jant bi du kii yàlla téyel ko jant bi téye ko téye ko téye ko mu yéex a soo ba gaa yi ba ñuy dugg si rek jant bi door a soo moo tax jant bi ñaari yonantu rek lañ ko mos a téyel ba àdduna sosoo ba léegi mooy Yuusuf ibnu Kaalib ak bi maanaam Yuusuf ibnu Nun la wala ibnu Kaalib ak yonentu yàlla Muhammad moom da doon xeex ak jabaa bi rata ya te mooy ki doon waxoon yonentu yàlla Moussa bi mu génnee àdduna moom la yàlla yónni woon te xam nga ñoom la waxoon ne leen dem leen ngeen dugg ca dëkk ba ngeen xeexi udxuluu misran fa inna lakum maa sa'altum njëkk loola waaye fekk tamit fee wa qaala rajulaani mina yaqaafu an xamala alayhim madxula leen waxee dem leen ñoom tamit ñi bañ ne eh, la nabra alayhi am na am na fu ñu ko waxee ne ko inna hahuna qaiduna mm-hmm. eh, fadhab anta wa rabbuka fa qaatila inna hahuna qaiduna yow Moussa mii di ñu digal ñu dem xeexi demal yàq sa borom wala nga dem yàq sa mag ji wa rabbuka mën naa firi sa mag ji mm-hmm. yàq sa mag ji Haaruna dem leen ngeen xeexi ñun fii duñ fi génn xam nga ci la yàlla saddaki ñoom ngël mën a ñeen fukki xat mm-hmm. ci biir ngël mën a googu ci la yonentu yàlla Moussa génnee àdduna léegi nag bi mu génnee àdduna ñu yàlla wax yu beneen nit bu ñu tuddee Yuusuf jox mission ba teg ko ci kawam moom nag moo mujj ànd ak gaay nag ñu dem ca jabaa bi rek ca xut su xeex ak gaay bañ demee nag di xeex di xeex bisab ah, ah, kii lañ doon xeex ajjuma ba jant bi bëgg a so te ñoom nar nañoo am victoire ci kaw gaay yi jant bi bëgg a so te ñoom bu samedi passé jot jant bi soof muy ajjuma dugg nañ samedi day xaraam ñu xeexati te kon dañuy fomm xeex ba te kon victoire ba day yàqu yàlla nag téyel ko jant bi ba mu duma leen ba daw ba nga xam ne lam doon wut ñoom am nañ ko jant bi doo a moom moom lañ ko njëkk a defal beneen bi mooy yonantu bi keroog ba mu waxee lii tamit téel nañ ko jant bi mais delloo jant bi nag jant bi dem ba fu sori dem ba midi ñu delloowaat ko ba huit heures yonantu rek lañ ko mos a defal moom delloowaat benn bis da doon nelaw ci lupp Seydunaa Aliw tàkkusaan jot yonantu bi nelaw ba mu paase muxtaar na julliwut léegi nag mu jug rek ba muy xeewu rek jant bi bëgg a sox hmm. mu ne nag yow yàlla àlliw mi ci sa mission bi yonentu la nekkoon ma tëddoon ci ay luppam di nelaw dama lay ñaan nga dellal ñu jant bi maa moom ñi bokk julli ca première muxtaar ma ndax tàkkusaan dafa foor ci la ko yàlla nag de tereet jant bi ba mu toll ci première muxtaar ma hmm. yonentu bi jàpp àlliw jàpp mu bi jiite ko hmm. kon doo yonent bi rek ko mos a moom waaye bee moom ñoom ñaar ñoo ko mos a xam léegi nag giléem yi ma la waxoon ba tax ñu teel ko jant bi lay wax ne wa bairan giléem yi lil qawmi ñeel nit ñi mm. xéeféer yi mm. axbaruhum solo na leen aydan ba tey xaw xawlahoo wër na ko xaw xawla xawmahoo nitam ña wahum ñoom roqaba way fugul lañ gëlëm ya mhm. xam nga fa leen waxoon ne leen àllarba la ñuy ñëw ci ngoon mhm. léegi nag euh, ba mu jotee rek ñëpp ñëw wër yonantu bi mhm. mbooloo mi yëpp màkk yëpp ñëw wër yonantu bi boole ko di fuglu gëlëm ya xam nga loolu bu fekkoon ne demeewutoon noonu day am gàcca yàlla téel ko jant bi ba gars yi ba ñuy dugg si rek tombeek jant bi dugg si wa daawum xool na leen ilallaahi jëmee leen ci yàlla salaasa ñetti xat ma ashrin ànd ak fukki xat mooy fukki xat def màkka wa arda dëddu na ashqiyaaw ñu texe àddi ñi kon saa ne gars yi ko xajatoo fi nag léegi mu dem madina nag dem gàddaay yi fa sallallahu alayhi wa sallam ca yonent bi kenn moom kenn du moom bi yàlla ko yàlla fayal yàlla ñu tamit maam xalifa mi ñu jàngal lii yàlla nañu yàlla fayal xalifa yàlla nañu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam avant muy dem na munawara yàlla parapareel na ko ba dëkk ba nooy muy door a dem moo tax avant muy dem am na fa mbooloo ba ñu tabax fa jàkka ku ñu tuddee asaad ibnu sarara moom la joxoon ndigal mu taxawee jàkka ja ñu nekkoon ñoo xam ne dañ daan